asalaamualeykum wa rahmatullah monsieur les ministre maa ngi leen di nuyu monsieur le président chers collègues députés et maires chers collègues de la presse mu le ministre nag man de dama jàkko jàppoon ne parrainage bi moom suñ ginnaaw la ne bi mu dellu si waatee xaw na maa jaaxal ndax Sénégal nag dafay signer ay convention internationale juriste professeur bu mag Ismaïla Madior Fall bu Sénégal yëpp seetloo kuy dal ci kawam li ngay njëkk a def mooy tagg ko c'est un professeur émérite doo ko attaqué kon yow ku ne mënul mënoo sa métier ah dina ma jaaxal waaye Macky Sall nag mooy suul ndaanaan Macky Sall mooy suul ndaanam parce que lii nga xam ne maanaam moom la lay dugal ci lu bëree bëree bëri ñu bëri dañ jàpp ne lii du Ismaïla Madior Fall te waru koo def ndax sa xam-xam loolu nag moom moo tax ba ma ne la convention yi nga xam ne moom la ñuy signé sur le plan international en tant que juriste professeur ministre lan lay jariñ cours yi nga xam ne moom la ñu yóbbu ñoom Karim Wade muy xalifa bitim réew yëpp dañ leen a gañe mais suñ tribunaux yi ñu leen atte yëpp yéen yéen a gañe loolu nag bëgg nañ ci gindi parrainage bi nag monsieur le ministre dañ ne cartum réew mi di ndeyu luwaay constitution bi dafa ne fanweeri at ak juróom soo ko amee remplir ay conditions mën ngaa nekk candidat code électoral bi tam li mu wax ak constitution bi la vote est secret man yéen laa ci xaw a yërëm yéen waa gouvernement bi lan moo tax ma yërëm leen mooy képp koo xam ne parrainé nga ku dul candidat wu Macky Sall yow sa directeur sa ministre ba ci sal Sall yi mën na am niñ leen dóor ba ngeen bëgg a dee. te loolu nag la vote comme que est normalement kenn warul xam kan kan la ko teel man moom sama baat ni poto président El Hadj Malick Gakou mooy sama candidat moom laay voteel tey ak suba ak ginnaaw suba kon loolu la xatuñ ci 0,6 pour cent la ñu wax léegi ñu ne Macky Sall wàññi na parrainage bi 0,8 pour cent la woon waa léegi fichier bi ñaata million ñoo ci nekk ba muy nekk 0,6 ñaataa ci nekkoon ak 0,ba muy nekk 0,8 0,6 tey. ñaata moo ci ne kon tey la parrainage bi gën a yokk ñu jugee ci loolu nag ñëw ci député yi nee nañ treize. monsieur le ministre yéen xanaa quatre ngeen bëgg ñu doon candidat mooy APR PDS PASTEF ak taxaw kese boobooy benn ñaar ñu ñëw ci lu jëm ci wàllu maire ak président de conseil départemental yéen xanaa yéen dongo yéen benn candidat mooy am mooy APR kese yéen dongo am cent vingt ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum parrainage citoyen mais monsieur le ministre amoo leen machine mécanisme yi baaxul technique bi baaxul fan ngeen di sukkandiku pour wax ne lii amul doublon lii am na doublon lii amul na lii am na doublon loolu tam jaaxal nañu monsieur le ministre le juriste ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum Macky Sall a renoncé à la troisième candidature il n'a pas renoncé au pouvoir parce que nag Macky Sall bàyyi na troisième mandat waaye Macky Sall bàyyiwul benn yoon le pouvoir soo ne yow yàlla dogal na ne bàyyi nga mais yaa xëytuma laa organiser la ay élection yuy jaar yoon nga jël nit ñi ñëpp bokk ñu dem mais boobu ba léegi Macky bawul mi ngi wax euh, lu jëm nag ci wàllum wa APR candidat wu candidat wu actuellement nii APR li leen sonal lenn kese la ñëpp am candidat ba mu des ñoom li garaaw li garaaw Sénégal fii ma taxaw di wax ak yéen nii ñëpp am candidat le parti au moo amul candidat te boo leen tànnee candidat lambay ñaaw